dinaa ko jël teg ko ci taabal ji ku mu neex jëlal ku mu neexul sa affaire la waaye dama ne dama ne président kenn du ko jàngale école de président du ay diplôme de président ay ambition la kon am réew kenn du ko faje mer li ci des yéen sénégalais yéen a koy mottali ak seen xel li ci des ah yéen sénégalais yi yéen a koy mottali ak seen xel. man du ma voteel Bassirou Diomaye jotewuñu dara nag aw ma moom benn problème aw benn waa Pastef problème billaay wallaay du kenn ku yeewoo Pastef koo xamante ni man Assane Diouf am maag yow problème bu dul fenkat yi fenkat yi moom lu mel ne ay ay Baara Ndiaye fenkat ay Mara Niass fenkat ñooñu nga xamante ni xolal xolal dañoo fen lañu fenoon yëpp ñëw tege ci taabal ji ñu bëgg koo fàtteloo nit ñi ba pare topp dëkk bi wër pour teggi tuuma déedéet man duma fàtte man lépp lay denc duma ma fàtte de tant maa ngi dund xolal dama leen di yóbbu vaar rek vaar vaar rek delloowaat leen ci seeni kàddu démb delloowaat leen ci seeni waxi démb delloowaat leen ci seeni feni démb ak seeni njublagi démb loolu rek laa fi nekke lu waay am ci ason Diouf nag teg ko ci taabal ji no problème voter pour le Sénégal voter pour le senegal voté pour conserver l'unité nationale de Sénégalais l'unité maanaam jàmmu Sénégal affaire yi du par affaire yi du buzz affaire yi du parforce affaire yi du buzz affaire yi du ay view affaire yi message la message message la boo xamante ni xoolal même bu dul ñun ak sama génération liy ñëw ak li am bu amee samay doom wala samay sët dinañ ne suñu papa waxoon na ko wala suñu maam waxoon na ko votez pour le Sénégal votez pour le Sénégal foofu rek laa yam ak yéen